Salut les amis de sportifs et de Barbe Show. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci le des likes, merci le des abonnés, merci également des bails des commentaires. Un hein. plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Une box sénégalaise fait folle maintenant. 14 régions du Sénégal, Roukrouka, Gorkoka, Ninglen, Diadjofel, Ninek également, qui à l'hôpital et qui est de février, mais une bonne fois que c'est une bonne mieux gamme. Ninek qui est en train aussi erreur judiciaire, Guinée, le football info, Yob, c'est une bonne gamme, l'enfeu, Deloar, l'enseigne, Diabol ñi déddu àdduna suñu borom xel leen ajane fi daw si gars yi te on avance ensemble dans la magie de Baba Show et de Sport TV l'actualité en continu gars yi actualité ñu fas yéene waxtaan mooy donc qui dit le ministre des sports ou l'ancien ministre des sports bi ñu daal di jàpp jamono ji ni wax également ci retrouvailles Sadio Mané avec Zinedine Zidane lépp ñu fas yéene ko indi ay leer laata boobu nag kii nag di Federico Chiesa Amna na déggoo ak ki nga donc Liverpool contrat bu quatre ans donc Liverpool daal daan na koy këf ci loxoy Barça Barça doon ci am yakar Chiesa nag un excellent joueur bo xam ne Juventus daf ko bëggoon jaay parce que euh, dañu soxla won khalis pendant ce temps aussi wa Chelsea ñoom mercredi bi maanaam àllarba la ñuy wéyal tey jii nii dañu waroon wéyalaat waxtaan ak ki am donc staff bu Osimhen pour daal di jënd Al Hilal ba léegi mi ngi ci mais dañ ne bu fekkene plan bu Chelsea doxul lay soog activer proposition bu Al Hilal ki nak également dit Ben Chilwell, le joueur de Chelsea moom Wartan avec Manchester United selon les médias anglais pour jéem xool la la fait même, parce que mon tamit bokkul ci ay plan pour Enzo Maresca le nouvel entraîneur donc des Blues de Chelsea Uyghur Sramgen que le joueur hollandais bi naroon a Argentine finale euh, li nga xam ne nag donc euh, finale coupe du monde Mon nag des ne du côté de l'Ajax Amsterdam donc des Delou du côté de la Hollande mais Ajax Amsterdam day daal dem euh, jouer kii Lacroix Nak day Wolfsburg dem dem du côté de Crystal Palace Crystal Palace également qui se renforce gis ngeen jënd nañ Pape ismaël nañ Ismaïla Sarr jeun nañ Nketia ji fi jeun nañ Maxence Lacroix le joueur donc de Wolfsburg pendant ce temps Danso mom day dem du côté de la Roma mom dal la ni ne nii ñu annoncé li nga xam moy donc départ le joueur hein, donc de Lens l'un des hommes forts de RC Lens Danso donc le championnat Italie lay qui n'a donc Karim Benzema Benzema avec Vinicius Junior ñom ñi ngi c'est seen respect ak seen lan ah, ci cadre xarit ki di euh, Vinicius da def nueve Karim Benzema def Vinicius Ballon d'Or donc mo ngoog euh, donc Vinicius Junior bi nga xamné ne daal Vinicius le grand favori pour être Ballon d'Or 2024 agent nak bu Kingsley Coman nee na mi ngi démentir ne actuellement ben accord amul ak ben club ay discussion amna na ben accord amul ak ben club ndax comme je vous l'ai dit Bayern nak Al Hilal am nañ accord mais joueur bi mom joxagul accord comme nous l'avons leen ko imagine gars bu dem ça c'est phénoménal al Hilal fa la jëg di Al Nasr pour dal len di gagner <laughs> ça le problème ñom sa a un problème gis ngeen am ñom Neymar Malcolm Mitrovic hein, Robin Neves Milankovic Savic militaire entre autres La Diop euh, nekon donc euh, lii di ministre des sports dañ ko daal di jàpp fi ne ni gay ci AIBD aéroport de euh, donc bu Blaise Diagne lañ ko daal di jàppee lan moo xew nak nañu si ay détails mais en tout cas daal mo ngok est-ce que doon bëgg génn rek mi wala ou pas doon daw mais en tout cas daal selon les informations dañ ko daal di jàpp retrouvailles Sadio Mané Zinedine Zidane actuellement daal ci Arabie Saoudite loolu le gars di ah, di wax ci souf ndax daal nee nañ di Cristiano Ronaldo nga xamné nak mom dafa am influence du côté de Al Nassr mom daal da leen proposer né entraîneur bo xam tay mën ñoo génne si mais comme je dis rumeur là donc du côté de l'Arabie Saoudite Les jógee ce n'est pas confirmé mais vous faites ait dem na confirmer ce serait une bonne chose parce que également ça permettra à Zinedine Zidane de revenir au devant de la scène les amis li ma nekkoon information ñu bëggoon jox c'est toujours un plaisir hein, de vous servir wooyu leen di like ou a des abonnés. on avance ensemble dans la magie de Babo Show et des Sport TV su baaxee ci la bonne suñu